mais après ci kanam xamna lay may mun inshallah allah Lamine ziar nañ la doon ziar bu wéré top jam Jisok ana say nak sama nak de gisaguma ko ah. waaw ya daanu final de waaw gis nga gisé lamb ji tay waaw contane rek ah. waaw démb dañoo daanu final tay ñu daanu final ah. ñu koy sant yalla bu baax nak yi nak di romb daa mel ne nagu baabu saar sambio kaat la baabu am baabu quatre la am. waaw ñaar lañ tegoon. sept sept baabu am kaar ki daanu final. am trois ndamal lami nakamu lami wara mu ci a di de me lamu len kam ñom na wajam kam asan jala len ci am jele di kaga cello lo ref kon dege la nu ndege rek ziar nañ la delo ziar bu baabu keroog yaa jël Diofior nag yi jóge fa ñëw jël si fas beeg saret visual mu mooy tey nga ñëwaat fii ci simal jëlaat la bu ji moom a fi yëngal la fa ref waa kaga leera bi mbopat bu ma ndik roogo yi sant anu Ndiallo gid motu na waa Simbal aussi noo gis lamb ji noo gisee lamb ji waaw a fela a jega ambiance je jega fop to comme roog a fiya a faka na jam ba a fag na jam in le mbaage le to le feleer kon a fela i ley ka waaw waaw o maaf a sorso pour demi finale finale in mayu a fiya ye yaafu poussière bo ndik nu maaf ra wala papat ka bo ndik waaw lu leer aga depuis raw gadu re parce que mi ye mbiya raw gadu yaaga garuma caf soɓan maaga maafan waaginum nag amana roog na yoona fumi mais kaaga règlement du contouré kwa kami nder noon nder in final fe nunu lamin petit sele i lamin waaw bon tere e domu ndes mhm. te jeg ma ma yengetama andona inona e, mbogu tige mhm. kon wagim mule dara ka e na encourager an nan aussi mu te retna o mbiñu lakas mhm. te jeg ma ndam ma refeerna diofior inchallah xaro lay ka supporter ka ina mbige a babou sar wa diofior wa grand yo fo sant a den gidma den jegim ndafi den surtout jeunesse o diofior xa boxe maxey bege a den les petits litors maxey bege a den fa fop gidma den gidma wa waa Ndakaaru waa Grand Yoff xaar yàlla maa ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen ziar waaw surtout waa waa waa xaar yàlla waa waa seen sera gars yi yëpp zone sept yëpp maa ngi leen di bëgg waaw di leen wax ne Ndama Dara mu ngi nii mu ngi si àll bi rey boppam ngir ngir ngir ñu am combat mën a dem rente ji stade loolu mooy suñu mbébét quoi lu leer noo gisee nag yi nag yi ñu leen ah, donc vraiment baax nañ trop ah, ah. baax nañ trop mhm. di di félicité waa si ma ñi nga xam ne ñoo tëgg laaw ndax lii moom mhm. mbëri yëpp dañoo sawar si lii quoi. maanaam nga jël làmb ñëw ñu ne la nag yaay ni nag yu baax. Mhm. da nga siy sawar quoi. waaw ah dafa métti maanaam nga jël làmb bi ñëw ñu jox la ay nag yu ndaw loolu neexul si kenn. kon donc jaajëf waa si man. Mhm. liggéey bi rafet na. acca tout droit. acca jaamu si yéen. Petit Sélé ngi nii ñaata nag la am. trois démb daa ñàkk final digganteem ak Siaka fële ca Ngariñ Séeréer dëkkam daanaka tey mu ñëw fii ci Simal ñàkkaat final mais tey am na ñetti nag démb ñaata nga tuuti rek tuuti. waaw. sa weekend neex na sant yàlla. waaw tare na de. noo gisee lamb ji tey. waaw lamb ji kontaan rek parce que lamb ji riis na nag yi rafet mhm. uh-huh. na yi rafet na. waaw looy wax say supporters ñi lay bëggee. waaw samay supporters ñu ngi leen di bëggee du leen bëggee bu baax a baax. Mhm. xam nga di leen wax ñu doole ñu ñaan rek comme te ay ndaw lañ xam nga. Mhm. dañuy wut si rek. affaire yi nag bi ñu waree ba léegi metti woon na. ñuy dem di ñàkk te jour boobu lañ gën a a dem. am na ñu ma doon woo découragé. waaw te xam naa ne làmb ji fii ak ñaari at maa koy téye. yaa xale maa am doole. mais Petit Sélé munoo dem tey te waxuñ ci problème yi am Joal keroog sa digganteeg ngañ seen mu dóor la fa nga daanu nga jógaat bëre mu daan la mais après affaire yi xeex man li ma ci gën a tuuse mooy Sélé mele Sélé mu kenn ma koo gis histoire Sélé kenn mosul gis mu xiiro wala mu ŋaayoo si lamb. ba keroog Sélé di xeex. lépp ngir rakam coow si yow la jógee. loolu loo ñu siy wax Lamine waaw. deret day sot te ji am na loo xam ne naasul. Mhm. ñun waaw peut être peut être mu ngi jël xam nga mhm. mais tamit nañ ko teg si yoon ku ne xam na ne dóor baare la mhm. gànceet ñoo bokk zone xamante bu baax ay majaañ yi daan nañ ko ay ay suñu booyee gën a ndaw daan nañ ko mhm. kon xam na rafet bu doon bëre dóor ñu bëre dóor mais tamit mënu mënuñoo bëre ba génn mu teg ma loxo ma teg ko mu saaga ma ma dox ba ci moom fayu waaw bi ma fayoo mu dóor ma arbitre yi war koo baare baare wuñ mais man xale laa te bu combat yi mënoon naa jubile du ma bërewaat mais damaa gëm ne dama xëy daan moo tax ma taxaw lay daan te tey moom laa dabu si woon. waaw waaw pare woon naa pour wax ak moom ak mhm. boo bëggee dégg-dégg. Ah. cinq oto laa andi billaahi. tey ci bañul bañu ma ko si. Ah. bu indee bëre ñu bëre bu indee coow ñu coow. Hmm. waaw loolu nga naroon ay xale lañ mais xale nga est que xale mënuñ koo xaar ci leneen lu dul ay coow yooyu noonu parce moom loolu la bëgg lii mooy trois fois mu koy def hmm. hmm. kon dañoo war a wax ak moom waaw ñu fair play bu ñu bëree daan ñu xam ne moo daan du ñu daan ba yóbbu ñu xam nga wala mu ñu daf ñuy daan bàyyi ñu te bu ñu daanee ren ñu daan ko ah. wala wala saison bee jeex ñu daan ko ñun am nañ gëm-gëm boobu noonu léegi Petit Sélé ñu ngi leen nañ fi daanu fi demi-finale daan fi ay champion ñu daan demi-finale tey ñu ñëw finale nag yi rafet nañ kaar masha Allah mhm. ñu ngi ñaan nag xam nga ñu mën koy teg chaque jour waaw ate la mi tout droit waaw tout droit sama tama babu zara ha dura a ahuma tafaka na a ka ayo ka tawe cafake ndi angara ba dat ifane simal daje ziar nañ la lépp jàmm o gar njom na saate of ref a domicile mafrel ñak final diggante o fa seva xanam geɗɗo jom ne waaw jegalo xa saate fe rek tika quoi yaam wax deg jom saate ten feleero quoi mhm. o garanga saate fop a soɓidong kam mhm. saate fe encore saate fe yakarum encore o gar yen ya final rek a ɗoma ɗum quoi mais jegalo adno sa xoɗa to mbir saate fe a demi final i mbir saate fe demi final encore ande ɗom ɗika regata encore ne ɗiko perte a na wasnoxa den xaqo saxo sax rek leya dene sax tega den jafe na gara teɓanong def entraîner nam de dara wax dara dara encore entraînement rek dama xul den solo quoi awa mbela naak de teg na nam ge ta naak kontaan naak wax dëgg mbaax a wax dëgg na paax a paax wax kontaan mbaax a tigi moom de ci xara lay ka supporter ke xara lay ka wa simal dégg a den de comme ne dug tan wax simal moom jegim dal den quoi ko ga jeg wiin ande wax dëgg wa gëma ñaka lima den grand kayin ka ande wax dëgg grand papin ngor cioflo rin fop grand kayin waga wax dëgg njege ndam den quoi wa demi de mbarna diaspora be ango en lambital en groupe en concert en la en pourena Allah ne mbudu en ci en halal la ko wiina ke njege in ndefo ten kuna jega a deɓ ɓisim rek wax deg ne jegaam o saaxo kuna dog TV TV ga and wax deg nuna ɓisayin o saaxo saax kiina anda in xaye TV TV taxu yaam keke jeg aye wax deg in mbad ko ge meeke mba i jon ko kene lome de siman kon TV TV den ɓisuin wax deg i njegin ndafo nu ngidman no saaxo saax moɗa ñaanan moƴa ngorgorlo saaxo saax naga yo aca joko njal mbir ne xeɗa na ke malong a mbarke o doon teen lakas fa lakas fa jaxaw ñaata nag la am ñetti nag benn ñaar ñetteel baa nga nële ci suuf. chef l'ambianceur. mu ngi nii la. le lutteur le plus fair play de la saison. le mbëru askan wi le comédien. Ah. le compétiteur. Ah, c'est a chaque week-end mu ngi samp di bëre c'est a ziar nañ ah, la. tey nga ñëw simal jël lamb ji ci kaw dëcc bu simal mu nekkoon à domicile. noo gisee lamb ji sama doomu ndey la quoi. Mhm. Wah, yàlla def na ma jël ji si kawam. Mhm. di ko féliciter di ko encourager encore. Mhm. waaw ndax nit moom du lekk lu dul war sa kam. dëgg la billaahi. léegi noo gisee nag yi nga xam ne moom moom la waa. si mën a jox ki nga xam ne mhm. nag yi moom wax dëgg fa la waa baax nañ. kontaan naa bu baax. moom sama jabar moo ñëw si làmb ji waaye loolu moo tax mënu ma daanu. mooy kat. sama jabar baax ini.

dugg il faut que gars coow ma waaw mbër laa dina ma gars yi jàppale mhm. man loolu laay ñaan gars yi kon nañ a jàppale bu baax mhm. mais CFA tamit am na si commentaire yi ay nit ñoo xam ne moom dañuy gis lu ñaaw fu ne ñuy wax ne ambiance yeeg yooyu noonu ñàkk fayda la wala waroo di def yooyu loolu loo siy tontu non loolu ñàkk quoi gars moom looy def dina am ñu mu neex am na mu naqari. waaw waaw man moom di jaajëf man moom comme am na ñu mu neex rek garaawul man moom. loolu laa mel sax ñoo ëpp man balaa may gën a mën a bëri ma ambiance su ma ambiance ma mën a bëri. Mm-hmm. loolu xam ngeen ko sax waaye dama duggee si la ma rek. xam ngeen jour boobu man du ma bëri li ma li ma xam. man balaa may gën a ma ambiance. man loolu yàllaa ko def ci man. moo tax. ambiance bi daa bokk si yow. waaw comédie bi daa bokk si yow. bilaay mais arbitre bu sifflé nga bàyyi loolu yëpp. dëggal def fu mhm. nga man man man man sama lépp ndax làmb. waaw su ma duggee nag dinaa def di gars yi li ñu bëgg dinaa fecc animé. mais su dee tuuti na bëri moom. Mhm. damay wane sama njambaar. ba su may daanu ba su may jël làmb ji. Mhm. damay wane sama njambaar. man loolu laa mel. kon mais su ma xamaa su paree moom damay continuer sama ambiance. waaw ak samay manière. waaw comme d' après. baa ngi noonu ñetti nag la am moom moo jël poids léger acca kon naa kexe daan démbarqué lakas fa lakasandoo noonu mais am na gel si làmb ji de ah gel bi nga doon sar non sa mag la jëri ko indi ko sama kanam non kooku sa mag la sa gel la rakku la waaw ah. waaw kooku sa mag la waaw ah. ah, waaw ndax Zilo TV normal gisaa muy wax sal ne kooku gelu Seva la <laughs> ah. ko sama magla musu sama magla gay xam len lolu est-ce am nga gel Seva. man amaguma dara gel yi nëbbuñ ma ngi ni dama fangé ma ngi ni gel na buñ ma. ba léegi amaguma gel la man man quoi. mais bu dama jigéen dimbali nëbb mooy. bu gaañu ko taw. non non bañu ma Seva yàlla na nga am jabu da jabu da nga am baax. nak li fa la nga la wala rafet moo tax lu bax rek ngay am. waaw fuñ la fekk yaa ngi foo di re di ambiance. di waaye nekk si lamb du tër da ngay ñëw sax di waxtaan ak TV TV yeeg gars yëpp. ndeysaan waaw yow amal jàmm ñëpp ñoo bokk aar bi quoi gis nga mbër bi mm-hmm. boykat bi tëggat bi ak TV TV yëpp benn la ñu mm-hmm. ñëpp ay doomu lañ la kon boog warul ñaw waaw man moom li ma war ak TV TV ak mbër bi li mm-hmm. man dama koy def mbër bu ma daan dam damay jóg félicité la waaw ku ma daan dam dinaa dem ba si yow ñu waxtaan ndax affaire bam sport la ndax suñu bëréwul suñu ngembul ñun ñoo nekku si keneen dañuy ñëw waa dund suñu dund mais suñu kese ba ngeen moom xamatuñu kenn lamb moo ñuy boole si jeexal ci am man moom noonu laay dundee man moom jënd daal voilà yi nag ñu jënd daal. yaa koy jënd jënd daal lii moom normal quoi na gars yi jënd daal il est temps il est temps les gars achètent <laughs> normal ça c' est pas logique. parce que ça amène ici amène